transhumance daal man fan yëpp bi ma gisee réseaux sociaux yi sunu ay mbokk sunu ay xarit sunu ay am di jàmm ñoo xam ne ñu ñun ak ñoom ñoo nekkoon fii ci ci l'alliance pour la république bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi yàlla defee ñoom ñu jóge fi te nguur yàlla moo koy joxe moo koy xaje ñu ne fi ñukk parti bi ñukk coalition bi déedéelu mel ni ku bokkatul ci dara xëy suba tey rek dem anti jeg Ousmane Sonko mais loolu du yëfu gor du yëfu gor gor nekkul dañ koy wax rek mais dañ koy jëf c'est des actes apposé gor du li doo xam ni c'est des théories c'est des discours mais c'est des comportement il faut avoir ñu am comportement yu digne il faut que ñu xam ni opposition bi dafa am liggéey y a un travail d'opposant le travail de collecte d'information le travail de critique de l'autocritique ça c'est la ça ça ça c'est comme ça. je pense que ñun réew mi war nañoo xalaat ci façon boobu war nañoo xalaat ñu xam étiqueté nit ñi am na ñu jóge ñoo xam ni tey tey tey Sénégal waratuñ leen fal waratuñ leen jox ndomu tànk waruñoo jiitee ci dara parce que seen jikko rafetul mais jikko mooy liggéey jikko jikko amul jikko ju rafet mais waroo continuer di jiite ay nit. doo jiitee parti am parti di ko doxal c'est parce que tu as des valeurs à incarner ñu ciy roy parce que parti yi doo seetee dañuy former ay nit c'est la mission la mission des partis politiques de former des citoyens c'est la première mission principal mais si les partis politiques continuent de faire ce qu'ils veulent les dirigeants de partis politiques ku ci nekk tey du la neex lu la neex nga def ko doo nekk ci benn parti nekk jiite ko ba mu neex la rek nga nekk foo ñukk gis kenn ko gañe nga dem ànd ak moom war ginnaaw ñi ensuite bokk ci coalition nit ñëpp toog yaakaar la nga xëy suba teel bañ bañ nommer la dugale ci benn poste euh, bu am solo nga xëy suba teel trahir ñooñu mais loolu ña nga jëm sax war nañoo tiit ñoom Ousmane Sonko war naa tiit ci ñi jóge ci ñee ñëw ci moom ndax nag sab doom doo fa gisee sa sa tubay duñ ko xamoon ni ñu ko olof jaay di waxee ci sa ci xarit ci sa xarit war ngaa da ngaa ragal sa noon sa nga sa xarit boobu mais ñi nekk ñi nekk tey ñi dagg tey man man man man je suis choqué ah je suis choqué te nag jàpp naa ni Pastef ak seen programme seen projet bokkul woon ci li ñu wax sénégalais yi dañoo waxoon sénégalais yi carrément nii ni transhumance danañ ko xeex sous toutes les formes mais pourquoi ñoom ñuy nangu di ubbi seen parti di dugal ay ñoo xam ne boo am nañ suffisamment de cadre ils ont suffisamment de ressources humaines pourquoi ne utiliser les ressources humaines les ressources pour mun mais loolu mooy dëgg il faut que ñu bàyyi transhumance si arrêté ko ku nekk toog fa nga toog képp ko xam ne ngaa géré woon ñu xaar ba set wecc doo setu doo setee ba set wecc ñu xam ne yow mi kat ak réew mi kat yor desaloo ko dara bu la neexee nag bu la neexee sax xëy na doo toogee ba yan yoon nga ne waa ñooñu soxla la nga ne ah dama sénégalais laa am naa intégrité bi war am naa moral bi war am naa jub njub gi wër gi war ñooñu soxla na la ah dañu laa soxla pour nga ñëw liggéeyal ñu ndax exemple nga nag koo xam ne reyukaay nga kooku d'accord naa ko mais sa waay salaamaaleykum maaleykum salaam nga takk seen gi de nga takk seen digg jàll ci benn wàll ga dafa gaaw juróom-benn weer juróom-benn weer man je considère li may considéré comme loolu trahison la tudd amul leneen beneen beneen tur c'est un crime te trahison la tudd amul beneen tur et que nit tey muy pouvoir bi muy opposition bi war na ñëw liggéey nag vers li l'uniformisation d'une loi anti-transhumant dañ cee war a liggéey parce que ni mu amee assemblée national képp koo xam ne da ngaa transhumé ñàkk sa force doo mënatee nekk député wala doo nekk député dangay ngay perdre sa poste sa responsabilité mais dañ koo war a def sur le sens politique képp ku quitté benn parti jóge fa parti bi nekk au pouvoir nga fekk si ko doo fa demee yoon dal ci sa kaw te duñu la falati ci dara loolu moo war a am donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni daal ñun suñu parti APRODEL ak ñi ñu àndal en elle-même le fait d'abandonner son parti pour aller se retrouver dans un autre parti pour se réfugier pour ne pour ne pas être euh, euh, contrôlé ou bien euh, euh, de euh, voir votre gestion pendant 12 ans mais ça c'est un crime parce que ces gens-là la plupart d'entre eux ont commis des crimes financiers dans dans leur ministère c'est pourquoi il ne peut pas rester je condamne fermement cette mode de, de, de, faire de la politique et que les gens, le pouvoir qui aujourd'hui qui gagne les élections depuis 2024, qui continue de gouverner et que l'opposition s'oppose. C'est ça, c'est ça ce qu'on appelle l'équilibre politique, l'équilibre démocratique. je vous remercie des cadres qui ont occupé des postes hautement stratégiques dans ce pays, qui ont occupé des responsabilités pendant des années dans ce pays, qui ont eu à défendre des positions ici pendant des années, qui prennent la responsabilité, la douce responsabilité de quitter la, leur position, c'est-à-dire leur statut d'opposition, pour aller rejoindre le, le pouvoir. Ça, en tout cas, moi je le considère comme de la trahison. Il faut que la politique soit revue dans sa forme de la faire, pour la faire. Il faut qu'on revienne à l'éthique et la morale. Si on écarte dans la politique ce qu'on appelle l'éthique et la morale, je crois qu'on n'aura plus besoin de faire de la politique. La transhumance est une est un cancer dans le jeu politique. C'est horrible. Comment quelqu'un, pendant des années, tu occupes des postes stratégiques, tu oses quitter ces postes pour aller rejoindre ces gens qui viennent d'installer. Pourquoi Au nom de quoi Pour avoir des prébandes, pour avoir des, des, des, postes de responsabilité, pour avoir des postes, de ministère, des postes ministériels. Mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Moi, personnellement, je suis très, très, très, très choqué quand je vois cette... Euh, euh, euh, euh depuis ces quelques jours, euh, bande de personnes qui quittent la paire, qui ont dirigé ce pays pendant 60, euh, ans pour aller rejoindre la, le, le, nouveau pouvoir. C'est écœurant. Il faut que les gens cherchent garder, ont gardé. Et qu'on revienne à l'orthodoxie politique. Mais ça, c'est pas une... On ne même les jeunes qui viennent après nous. Mais qu'est-ce qu'on va leur apprendre en termes d'éthique de morale politique Voilà, Président, vous avez été un des pionniers qui ont participé au renforcement et aux acquis démocratiques au Sénégal. On vous connaissait depuis la LDMPT. Aujourd'hui,